jekk taaru tey yànji lool mooy li ñu njëkk nemeeku bi si ñuy bët ne jàkk tableau yi lile nga xam ne moo fëkk suñuy bët nag soxna yi ngeen di gis ñoo ko defar nday euh, m'appelle Ndeye Marème Fall c'est Mariama Aïda Ndiaye maa ngi tudd Aïcha Thiam Ina artiste di Tororo. Nom d'artiste Kat. Dacha comme nom d'artiste. Remena. Ouais, c'est mon surnom. Don, ay artiste tay bëgg lool li lay ñuy def ku ci nekk ci ñom nak di ñëwaat ci lan mo lu la booleeg Euh, sama début nak mëna né depuis xalé la parce que xam nañ ne la majorité bi ñi def dessin hein, dañuy am don d'abord donc suivi soit dañuy am suivi soit do am suivi légui man nak jotna am suivi parce que souvent su ma stressé wala may di mere nit d'habitude damay dessiner donc au fur et à mesure ma dem ba nek sama terminal si laa def concours Beaux-Arts commencé nek si walum art plastique mais après ba ma lay soog a dugg monde yi nga xam te wax art urbain graffiti si laa commencé di ak ay artistes yo xam c'est des autodidactes commencé ci am jangat ba tey ma mën si egg fi ma agsi tay tey. Ah je pourrais dire que ni bama ma xalé la commencé ki à l'âge de 11 ans Là commencé découvrir mon talent artiste en fait comme je suis né avec autodidacte après je me suis pourquoi pas poursuivre cette rêve. bon graffiti dafa nek ben passion au début peinture mom la doon def ak dessin crayon mais après euh, bon dama une formation formation graph hall de Zenix après j'ai commencé à faire graffiti. Graff. bi on est que des beaux arts La femme qui fait def Graff, bi on était dans la même classe au fur et à mesure on m'expliquait expliquer par la curiosité il faut que bëgg comme je la il wax ngay dañ pour xam li et par la suite j'ai continué. au début c'était difficile parce que au fur et à mesure ngay dem école à chaque fois dara bu ñëwé sa nga bëgg ko dessiner nga bëgg poursuivre cours dessin yi difficile et du coup je me suis dit que pourquoi pas ma battre, je vais faire tout mon possible pour que sama parents yi ma jox valeur ni dinañ accepter que ni art bi bëgg art au fur et à mesure première exposition ñom tam ñu convaincre que ni sama rêve la pourquoi pas ñoom tamit si lañu commencé accepter que ni milieu art bi ci la nekk té mom la bëgg. man nak luma ma boole ak art bi mën naa ne yàgg na yagul parce que man sama famille dañoo yag di dessiner mais ay fo lañ ko jàppee bima ma en classe de 5 cinquième don na def ay art et j'étais bien bien meilleur ci élèves yi lorsque j'ai eu mon bac je n'avais pas grand chose à faire ma dugg di cherche ay images je les reproduisais. Lorsque je les reproduisais, voilà, on me disait que voilà, ça a fait rire, tout ça. Après, j'ai vu un euh, appel de à candidature, Bob l'a déposé. Et c'est là que j'ai connu le graffiti. Je ne connaissais même pas le mot graffiti. C'est là que j'ai connu le graffiti. tey nak luñ nek ay jigéen tax na ñu fës lool ci kanamu nit ñi ñom ñi ne nak ci seen gis-gis lépp lu goor wara mëna def jigen war na ko tam. itam raw ci doli ci li le nga mom lañuy fierté la mbégte la xam nga nek ci milieu doom surtout graffiti bi nga xam ne toujours ay góor rek mom ngay gis yow ci euh, moment bi ngay ñëw di job comme man muy man di ñeneen ñi affaire yooyu noonu nit ñi ku romb de naan moom non kii jigéen la jigéen moom mooy def lii loolu rek fierté la loolu rek mbégte la. xam nga avant da nga doon gis suñu culture du permettre jigéen mën a def li mu bëgg fii da ngay gis jigéen si këram rek lay toog togg lay def yàq parfois sax avant daawul jàngi bu ñu commencé di jàngi di dugg ci école yi c'est pas trop longtemps donc bu ñu commencé loolu noonu ñu gis que ni nekkul ci école bi rek parce que école bi on fait de bonnes notes ci les meilleurs la ñu bokk nekkul ci école bi kese lañ mënee mën nee nañ feneen ak fenen d'habitude lu ci bëri bokay def dañ naan yow li ngay def nii yëfi góor la mais dañ dem ba si biir xol né xamné tamit amna ay jigéen ñi nga xamanté war nañ ko mëne parce que lu si bëri du laajul doole te buñ daan wax liggéey doole góor lañ ciy xalaat mais li fi ñu fi ñu toll nii liggéey yi dafa laaj ki nga xamante ne day xalaat te jigéen ñi jàpp naa ne ñoom it war nañ mën a am benn apport ci population bi ndax développement bu demee bay taxaw bu si jigéen jàppul selon man gaw ma nekk que développement boobu dina dem. fenee mooy ndar fi ma jógee c'est rare nga gis artiste bu jigéen foofu noonu d'habitude dama doon tàng dama doon toog naan est que am na ay artistes jigéen yu fi nekk. mais après moi quelques-unes des des personnes qui sont ici à Dakar ñu ne ma am ay artistes mais dañuy ku nekk da ngay toog sa wet sa parce que da ngay boo génnee xamoo li ñeneen nek di xalaat seulement nga nek jigen nga nga gis ci ay góor ñom tamit des fois milieu fay da fay bizarre ndax da ngay gis ay góor yo xam dañuy profito ci yow la fekk nga bëgg aar bi nga bëgg pousser ñom tamit dañ profito da fay am danger mais quand même on essaie de gérer. man ay at ci gënoon na metti

ñenn ci ñoom di weccoonte ak ñun expérience bi nga xamante ni dund nañ ko ci milieu bi tey duñ ko mës a fàtte. Euh, sama première fois bi may dem Kolda parce que ki ma indi tey fii nii moom moo ma yóbbu Kolda te mosuñu woon xamante dañoo dox ba fekkante Saint-Louis mu ne ma daf may invité ci festival bu muy def Kolda mu tuddee koon Fulaadu art urbain. ba ma fa demee ma gis ne man dong maa siy jigéen nag si ñi fa nekk ñëpp ñi mu invité ñëpp man kese maa fa ñëw étant jigéen artiste ba pare bëgg nekk si milieu graffiti ñoom ñëpp dañ ma jàppale gis naa ni que nekkul faveur bi ñu may defal mais dañu gis sama sama imprégné imprégné si si milieu bi ñu nekk ba ku nekk jéem a jàppale jéem a comprendre ba xam man si lan laa nekk exactement dañ ma buux booster ma léegi li ma si gën marqué mooy dañu egg gis nga c'est pas évident jigéen yow dong nga ànd ak ay góor voyager dakaar ba Kolda c'est des kilomètres ça veut dire que des heures de voyage sama waa kër yi nangu maa bàyyi ma ànd ak ñoom donc euh, loolu noonu moo ma téye ba tey fu ma dem fulla ak fayda laa fay demee ak xam li ma fa yóbbu caaxaan taxu maa jug na taxul ma jugee suñu kër di fa dem donc étant jigéen si milieu boobu boo amul sa fullaay bopp rek doo dem te ñoom dañ ma won yoon bi jàpp ma ba tey instant bii nii ñu toll nii fu ma dem man sama bopp damay yëkkati sama bopp te nekkul folie de grandeur mais ñoom ñoo tax ma am fit boobu noonu donc moment boobu moo gën a marqué si sama circuit artistique bi yëpp

pour dem pour kii mais c'était pas facile année boobu pas facile Les ma war def examen en même temps de sama exposition même année ñu ne ma boo deful ce bo deful boo amul examen do def exposition alors que tout était prêt du coup que ni résultat que ça laa xaar pour mën pour mën def exposition bi. ku ci nekk si artiste yi lee am nga looy séentu am nga loy yotu ñi lay seen bëgg-bëgg du lenn lu dul egg fu sori ba fi ñuy tudd nit ñu mag ñi lay ñu mën leen fa tudd. man sama rêve nag moom franchement mooy euh, indi fii li nga xamante ne mën nañ ko daan nañ ko dégg mun naa wax ay 10 ans si ginnaaw wala 20 ans si ginnaaw wala amaan na ñu ngi koy suivre mu ngi fi am mais amagu fi doole trop trop trop taw gis naa ne am na yenn changement yu ñu war a apporter ak yenn nouveauté yu ñu war a apporter parce que nit boo nekkee si benn affaire nga ne da nga koy def munoo si def 10 ans di defar même chose nit ñi soxlaatuñu loolu faw nga indi lu bees. te dama gis que ne Dakar déjà beaucoup ay espace de jeu pour enfants te loolu dafa bokk ci li nga xamante ne des créations de parcs d'attractions écologiques. d'ailleurs moom laa def comme euh, étude beaux-arts moo nekkoon un projet de mémoire mais comme vous génnee je xam ci kan nga exactement pour mën ko proposer ce projet donc loolu day xaw a gal encore, mais maa ngi ñaan d'ici peu de temps Inch'Allah, ma jéem am yenn lien yi ak ñenn personnalité yi surtout si walum environnement ñu gën taxaw si walum environnement parce que soxla nañ ko trop trop trop. sama def moy genre voilà gëna continuer ci art bi euh yegg si yenen niveau xam nga di gëna voyager di gëna découvrir voilà di gëna def sama expo sama tableau partout dans le monde lool mom bokk na ci sama rêve yu gëna mag quoi. sama rêve le plus fou je dirais que c'est tout simplement de quitter le Sénégal et de réaliser mes rêves. Parce que fini, ben ils exposent que il y a que les autorités qui viennent, ils regardent, ils achètent plus. Mais amna ñen ñoo xamantene bëgg nañu réaliser le fait d'avoir des œuvres chez chez eux. Histoire de les aider ici au Sénégal, ils dañuy préférer di def ay peinture murale pour mën leen aider ñoom tam ñu œuvres parce que œuvre yi ñuy defal ñoom genre ku ci ku ci nekk naan œuvre alors que nous, ils sont capables de l'acheter mais jarul leen ko. Du coup, nous, moi, personnellement, je préfère réaliser mes rêves en dehors du Sénégal pour pouvoir en bénéficier quelque chose. Je pense que je ne peux pas voir ça, je la caméra parce que je suis <laughs> Mais ce que je sais, c'est que je veux sorry, sorry, sorry. Ce n'est pas juste pour au Sénégal, ce n'est pas juste pour être, rester dans l'Afrique, mais dans le monde entier. Et je ne suis pas seule, je suis avec une binôme. Je veux nous sorry, nous sorry. Nous voulons des filles, que c'est. Si nous avons œuvre

c'est pas juste côté jigéen la on parle pour les enfants on parle pour les hommes on parle même pour les vieux donc dinañ fexé ba suñu art mu le monde entier c'est pas juste les noirs c'est pas juste les jeunes c'est pas juste les les blancs ça va on va essayer de lal ñep ba ku nekk santé sa bopp parce que c'est ça l'art quoi. bëri na ci seen ñoo xamni amuñu opportunité bi ñi am ñile nga xamni ne ñoo ngi dund seen bëgg-bëgg jamono ji ñu ngi ñaax ñi nga xam ni ñoo bëgg aar ñu fësal ko tey wane seen bëgg-bëgg. mooy que jigéen ñi bu ñu xaar dara ci góor ñi quoi comme ni ñu ko faralee di dégg mais léegi comme gis ngeen ni jigéen ñi ñu ngi fépp ñu ngi ñafe pour amal seen seen bopp quoi. à la place de góor ñi je vais même dire à la place de góor ñi je dis on sera à notre place parce que de les d'après les merveilles qu'on commence à faire et les merveilles qu'on qu va continuer à faire jigéen dina dem fu sori ba dina romb sax place su góor nekk ci place am moom bi nga xamanteni mom la mérité. capable nañu réaliser un rêve buñu ragal buñu ragal di fekk ñeneeni pour def ko que ne lepp ki la rek programme la rek dang koy dangay ngay lepp en charge nga bàyyi yalla mu gi parce que sa destin yalla bu nee lii da koy def dang koy def. ku ci gëm sa bop en plus nga bolé ci ak job toujours lolu moy sama moy sama moy sama mot bi mooy moy gëna wax moy sama phrase moy gëna wax toujours nga job gëm sa bop avancer je veux la si quoi nga dem ba sen niveau su dafa am lo gëm continuer di ko gëm te xam ni que bindal am gëmal ni yow art, bi nga bëgg bu di nga exprimer wu te bul baisser les bras bu la sey tax nga ne la que soit wala ak même homme. bu mu tax nga né damay un parce que je trouve que c'est une libération je trouve que daf lay permettre yow nga gën a xam sa bopp nga gën avancer ci li nga nekk donc ne lâchez ne lâchez jamais continuez à croire à ce que vous voulez faire et incha ça va venir. voilà may gën a jox jigéen ñi voilà maa leen di gën quoi maa leen di gën a ñaax xam nga ñu gën développer seen passion lépp loo loo moom la lépp loo mënti bëgg yow essayé nga di si évoluer jigéen ñi maa leen di ñaax ngir yàlla war a suuli lépp loo leen mënti bëgg bu leen am dara loo xamante ne moom moo leen di recalé lépp loo leen loo leen mënti bëgg dem leen si à fond yàlla dina leen si jàppale incha allah. et pour finir je remercie ma daronne qui m'a laissé venir ici parce que c'était pas facile su ma xëy Dakar laa jëm fekk fi ay samay moroom góor samay moroom jigéen alors que jigéen Ndar ñëw ba fii nii moom c'est pas facile nga bàyyi sa doom kii je la remercie et mon père aussi.